hello hello everyone welcome back to seen class jàng anglais tey nag leçon yi leen indi mooy lesson five and six maanaam uh, pronouns ak uh, ni ñuy inde conversation maanaam ni ñuy tàggatoo pour kon ni di am leçon yi nag di leen abonné ci King Production bu leen fàtte subscribe tamit ci seen bi pour am yeneen vidéo yu mel ni di ko partager tamit ak seeni friend ok let's go let's start waaw tey comme liñ leen ko waxee li ñuy dëkk a yéen mooy pronouns ak euh, ni ñuy inde conversation maanaam ni ñu tàggatoo waaw tey nag yi nii lay demee leçon cinq mooy pronouns mooy li leen wax mooy ni ñu waxee man yow ak ñoom ak ñun ak uh, ni ñu tàggatoo maanaam end of conversation waaw kon ni ñu commencé yéen ci lesson five pronouns bu njëkk bi number one mooy I wala mi ñoom ñaar bu ci nekk man lay tekki man you mooy yow they mooy ñee them mooy ñoom ñu répété ko I wala me bu ci nekk man lay tekki yow mooy you ñee mooy they ñoom mooy dem waaw ba léegi ñu kon ci pronouns yi uh, wala us mooy ñun lay tekki ñun him mooy mom ku goor ki her mooy mom ku jigeen ki ñu baamtuwaat ko we wala us mooy ñun him mooy mom ku goor ki her mooy mom ku jigéen ki kon ñu indi leen ay exemple ci li nga xam ne moom lañ jot a jàng number one I am Cheikh man maay Cheikh number two you are Ami yow yaay Ami number three they are mooy ñoom ñooy number four them kids mooy ñoom xale yi ñu répété ko am Cheikh man maay Cheikh you are Ami yow yay Ami they are mooy ñee ñooy them kids ñoom xale yi. ba léegi ñu dikkee yéen ci yeneen exemple number one we are mooy ñun ñooy number two is us mooy ñun la number three is him mooy moom ku góor la wala moom moom ku góor is her number four mooy moom ku jigéen ki la wala moom ku jigéen ki ñu répété ko we are mooy ñun ñooy is us ñun la is him moom ku góor la wala moom ku góor ki is her mooy moom ku jigéen ki la wala moom ku jigéen ki waaw leçon bi ñuy mu ak yéen nag mooy lesson six euh, bu njëkk bi mooy goodbye goodbye wala nga ne bye lu muy tekk mooy ñu def noonu number two see you later see you later lu muy tekk mooy ba ci kanam number three see you next time see you next time li muy tekk mooy ba beneen yoon number four good night mooy fanaan ak jàmm wala ñu fanaan ak jàmm waaw that is that everyone waaw loolu lañ leen ci ay leçon ci seen classe jàng anglais pour am yeneen vidéo yu mel nii dinañ ko ne ci subscribe ci seen bi di King Production di ko ne di like seeni videos ak di ko share maanaam di am seeni videos ak di ko partager ah, pour am yeneen vidéo yu mel ni di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah peace out